Rester focus sur notre objectif commun, c'est construire, développer ce Sénégal avec les Sénégalais. Et vous ne vous laissez pas divertir. Et c'est ça qui me rassure et qui fait plaisir. dara mënuñu yëngal dara mënuñu jaaxal dara mënuñu détourner rien ni personne daañu réere ñun fi ñu jëm daañu réere li ñu doon dañu réer li ñu xam ba bu ñu du ñu egg fa ñu jëm ci kattanu yàlla du attaque du manipulation yi du sosal yi du intimidation yi du tara ñu yëngal rien ne nous ébranle et rien ne nous on a tellement l'habitude, on a tellement l'habitude de l'adversité, on a tellement accoutumé à la difficulté, on a tellement été éprouvé.

depuis le meeting du F24 amul lu ñu déggul amul lu ñu waxul ma ne dafa wax ne wax ju bon dëmu jë jëmul fa mu dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la ca faaw ma ne dafa wax ne olof dafa wax ni wax ju bon dëggul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo ñu teg ci ne ñu teg ci ne lu dul dëgga du yàgg ñu teg ci ne ñun ay gor lañu ay garmi lañu am na ñu ruus ak ñu jom am na lu ma jombale sama bopp am na fu ma dul egg ci politique su ma waxee samay góor samay nawle ñuy ay góor la waxante suñu biir lu ma ko wax mais am na ay kàddu yu may dégg ma bëgg wax Sénégal wax sénégalais ni kuy wut workat da koy wëri feneen te loolu laa ci wax nag te bëgguma ci sori parce que dama xam lu bari fekke lu bari nag tontonteeg kenn parce que ëppale naa ko suma bopp parce que nag ba ñuy créer Yewwi Sénégal la ñu Yewwi Askan Wi lañ ca waxante woon ñun musuñu wàcc charte bi jamais de la vie pendant les dix ou quinze mois yi ma ko jiite lu ci neex ak lu ci naqadi nangu naa ko gàddu naa ko kenn xamul nan laa ci def ak lu ma ci deful lépp mën a lu ci baax mën a lu ci bon mën te fas yéene ma wax la ca xew bu ko kenn xaar ci man mais ma wax ne Yewwi Askan Wi dafa ne élection présidentielle, c'est la pluralité des candidats. musuñu envisager mu ñu wax suñu waxtaanee candidat wu Yewwi Askan Wi comme comme amuñu candidat wu Yewwi Askan Wi kan lañ fi wor ak kan lañ fi trahir à ah, moins que am lu ma yëgul walla lu ma xamul bu ñu ñuy wax loo ñun duñu woonkat may wax ne dialogue bi ñu dem tey su amaatoon ñu delluwaat laqatuwuñu nëbbatuwuñu bi ñu ko waxtaanee suñu biir dañu ne ku nekk na waxal boppam chaque parti membre de Yewwi Askan Wi waxal sa bopp ñii ni duñu dem ñun ñu waxtaan ak suñu baat ñu ni dañuy dem ma yëgal leen ne dañuy dem musuma def lu ma leen waxul dama ne maa ngi wax ci micro musuma def lu ma leen waxul donc man ak Yewwi Askan Wi sama gannaaw bandak mais moo tax man du ma sori ci wenn wax yi parce que je n'insulte jamais l'avenir ëllëg ëllëgu yàllaa te ëllëg lu bari mën na cee xew donc du ma fi wax lu may yedde sama bopp wala lu may yedde ëllëg mais dama bëggoon ñu xam rek ne Yewwi est une belle famille à laquelle nous nag te kenn na mënuñu cee dàq kenn na mënuñu cee génne ça je veux aussi soit très clair c'est une belle ña fa nekk ñu respecté leen bëgg leen am na luñ dul séqanteeg ñoom parce que ay xarit lañu ay gor lañu ay nawle lañu ma bëgg rek ngeen xam ni li nga xam ni moom la ñu d'accordoon F24 d'accord ko ci biir Yewwi Askan Wi musuñu ñun jéggi ci dara on rien violé rien du tout F24 avait dit que képp koo xam ni invité nañ la demal ku bëggul dem bul dem F24 moom du dem parce que loolu du bokkul ci objectif ba ñu demee dialogue baat la ñu la F24 arrêté ñu waxtaan ko ci Yewwi loolu lañ fa wax donc camarades je veux que leen kenn jox mauvaise conscience ce pays là dama fi fekkee lu bari taxam xam fi lu bari et toutes les crises politiques ont été résolues autour d'une table maa ngi dégg deuxième dialogue phase deux du dialogue ak nañ dialogue eh non mujjee lu ma gëm mooy gis nga réew mi suñu bosal kenn ëpp fu kenn dara ñu ànd waxtaane lépp mooy li am solo parce que loolu mooy njëriñu réew mi ñi ci kaso bi kenn yéenewu leen ko ñoo ngi koy métti te ñoo ngi leen di jàppale lépp lu ci war xeex daañ ko xeex pour ñu génn mais nous nous ne sommes pas des hommes de compromission jamais man lu may def dafay leer dama ni le président Macky bi may wax ci micro Assane Gueye émission la ma laajoon boobu lii lépp xewagul mu ni ma su la Macky wooyee ma ni ma su ma wooyee ma dem waxtaan ak moom ci réew mi parce que dem waxtaan du du nga dem militer Benno Bokk Yaakaar wala nga doon Benno Bokk Yaakaar wala nga doon appendice su Benno Bokk Yaakaar ma ni nit ñi nañuy fàttaliku moi je suis dans l'opposition depuis 2000 te mosuma changé depuis 2000 je suis dans l'opposition te mosuma changé Tous les mandats que j'ai eus, je comme opposant. Deux fois député, deux fois maire, te te compte. ku ñu xamalul nga xam sa bopp bopp moo tax yenn yi su ko nit ñi di wax u wax ju ñaaw la u bëgg wax lu la neex maintenant discuter avec Macky Sall le président Macky Sall ma ni su wootee ma wuy ji et je ne serai jamais Benno Bokk Yaakaar je suis de l'opposition et je reste dans l'opposition dëgg loolu laa jëfe loolu laa doxe loolu laa waxe li may wax c'est conforme ak ni may jëfe donc yenn yi wax ko sonnal sa bopp la gis nga ñi yuuxu ak ñi may jege ak ñi may topp di wax dañ ma xamul xar dafay weesu côté mais sinon am na lu ma dul nangu ñi ma xam xam nañ ne am na yoo xam ne daaw ma ko bàyyi sax c'est des choses que j'ai dépassées c'est des situations que j'ai dépassées ce qui se passe ici ne m'impressionne guère mais dama bëgg ku nekk ci yéen xam loolu bu ñu leen bundaxataal bu ñu leen jox complexe bu ngeen tiit bu leen jaaxlee ñun xam nañu fi ñu xam nañu li ñu bëgg nañu dem egg ca rek ak dimbalu yàlla kàttanam loolu président de la République en 2024